dalena jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy ci 23 juin 23 juin mu nekk date boo xamante ni fàtte ko ci réewum Sénégal du yomba yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy na ci ana lan moo waral 23 juin journal bi nee na Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réewum Sénégal moom ak i ñoñam ñoo toog si seenub saal waxtaan ba mu neex leen ñu bëgg fee andi ab ticket présidentiel ab vice président maanaam ci gàttal élection yoo xamante ni 25 pour cent boo ko amee da ngay falo loole nag la askanu Sénégal càmboroon xool ba xam ne jàpp nañ ne jaaduwul ci réew mi te loolee dafay salfaañe yàq démocratie loolee taxoon askan wi daal di fipp ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum politique ak société civile beek askan wi ñëpp maanaam ñoo dagg ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin 2011 dagg def ak ndiiraan wuti fi nga xamante ni mooy assemblée nationale maanaam fees fa dell sam assemblée nationale ne Abdoulaye Wade li mu bëgg ci réew mi du am ci réew mi jamono jooje nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi doon nañ janoo ak ñi nga xam ne ñooy askan wi maanaam sànnantey xeer grenade lacrymogène yi teg loxo yi blessé bëri mel ni tulleeg màlli ci réew mi réew mi tàng jër journal bi di réew mi quotidien nee na sa jamono jooje nag Abdoulaye Wade si la mujjoon daa di daw deuxième maanaam deltu ginnaaw loo Abdoulaye Wade def yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal ñu li tax mouvement M23 daa di juddu mooy askanu Sénégal goo xam ne ñoom dañoo jugoon wax ne li Abdoulaye Wade nekkee ci réew mi rafetul la waaye esprit boobee mën nañoo wax ne dañu ko wor wala dañu ko trahir ndax lépp loo xamante ni daal naqari woon askanu Sénégal ci Abdoulaye Wade jamono ji naqari na leen ci Macky Sall lépp loo xamante ni Abdoulaye Wade ma ngi ko doon def mën nañoo jàpp ne Macky ma ngi koy def kiif kiif mburu ka beñ fokk furiña ndax Abdoulaye Wade dañu ko doon tuumaal ci doomam ji nga xamante ni faloon na ko Macky Sall nag moom bi mu ñëwee fal na rakam bëri na ñoo xamante ni Macky Sall jàpp na leen dugal leen si kasu bi mbiri xalifa Sall mbiri Karim wadd ma ngi fi parrainage boo xamante ni Macky Sall voté na ko te amul débat Macky Sall dindi na fi poste premier ministre mal gouvernance bi nga xam ne moo nekk ci réew mekk scandale yi nga xam ne saa sunu xëyee dégg ko ci réew mi maanaam maara détail yi nag nag daal di xëy wax ni ñi nga xam ne ñooy opposition beeg société civile bi ñëpp dañoo noppi ci mbir mi xanaa bu weesoo Ousmane Sonko Alioune Tine la xam xamle ne ne M23 jamono ji mën nañoo jàpp ne ab takkandeer rek moo si des enquête yéen a dikk ci mbirum Bate Plus ak fraude organisée bi nga xamante ni daat na say ama lu jëm ci wàllum Covid 19 ak collectif médecin doctorant yi nga xam ne jamono ji dañoo mer ba maara détaillé ndax pirim yi nga xamante ni moom lañ leen war a jox ba léegi nii joxuñu leen ko moo tax dañoo bëgg a dem ci ab grève askan wi nga xam ne ñoo nekk gàddaay ni ki démb doon nañu jàmm naqarlu ak xam ne ñooy takk der yi bëri na ñoo xamante ni teg nañu leen si loxo bëri na tamit ñoo xamante ne am nañu si ay gaañu-gaañoo yéen kay gi di source a ñu xamalaan ñu dëgg gi kay mooy jamono ci maanaam réew mi mooy jax-jaxeel turbine yéen kay xëy feelu ko nee na tout cas li am ba des mooy manifestation yi bëri na loola ndax ci gàddaay di Koumpentouma gis nañ fa ay manifestation ñi nga xamante ni ñooy militaire invalide yi ñoom tim mer mu rëy la ñu mer yéen kay gi di vox populi mu ñu xamalaan ñu bombe foncière bi bis bu explosé ci réew mi du baax réew mi ko di jeex xëy di ñu xamalaan ñu duwaan teg na loxo lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay kilo yamba ci benn camion malien libération yéen kaay xëy ci mbiri Cheikh Yérim Seck mi nga xam ne maanaam dañu koy tuumaal yàq ëmb journal bi nee na ki ñuy wax ne Cheikh Yérim Seck moo ko ëmbal di ko ci tuumaal kookee du am mineur Ngóone Caam la tudd am na lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay at Ngóone Caam moomee teg nañu ko loxo ki nga xam ne ab infirmier la ñu njort ne moo def lu ni mel di Yaaya Sow kookee tamit teg nañu ko loxo Cheikh Yérim Seck bi ñu ko laajee na ko ndax ndaw si yaa ko ëmbaluma ko ñu ne ko ndax yaa ko wax yàqal biir bi mu yónnee mu ne dama ko yónnee woon ngir jàppale ko enquête yéen kaay ne en tout mbiri jamono ji ma ngi gën a taar ci Cheikh Yérim Seck tey ji fukki waxtu dina wuy ji waat yéen kaay gi da la témoin xëy di laaj ana lan moo tax bali fetal yi di tàkkaat ci diwaanu Ziguinchor maanaam ci diwaanu Casamance yéen kaay gii di sunu lamb mu ñu xamal ñu Gaston Mbengue dellu si wan ci lamb ji ak doole am na kalaaf bu rëy boo dalal FC Barcelone tey ji nag Barcelone ak Bilbao danañu laale waaye nag Barcelone bu defee erreur rek Real Madrid dana ko fi bàyyi journal bi nee na li am ba bi diggante Real ak Barcelone dafa seere